Sidi Diop il na d'arriver waaw Sidi ngi nii. Amina. Niass Koumba Abdallah. Amina Niass Koumba Abdallah yee. dexal islam sama Amina ak bari Amina Niass Koumba Abdallah yee. feexal lislaam sëpp maam ee eh, ak a bari ngor ah, moom foog ñu woyal ko jéri tan tandian rek dee ci sama xol sama puissance ko koy kan mooy Amina Niass mooy Amina Niass tax ma yaa koy raay ba ginnaaw raay tax nee xale bi suñu daaraw bu seexu naa ak sumbu doon moom du wiiri mbiri nekk ak yaaw dina ko neex soxlaatuñu duubul fii ndaxte xam na warefu sëy rendez-vous la du dëkk Ousmane Amina Sidi Diop maa ngi laa ñu woo